ma ne. Seck wuyu ma. yaa may déglu. Ah. xamal nag sa bopp bu ndaw bii. Ah. dama ne. bii bii bu leerulee. bàyyi it ma ne cinq cent jox naa ko ndaw sax. ci kay. yow da nga joxe daaw. ci naka. Seck déglu rek. yow ana man ana yow. waaw nga yëkkati cinq cent man loolu nga ma teg. ci naka. damay bañ a wax rek ñuy am ay problème déglu rek. yow da ngaa waroon a yëkkati nga jox leen vingt mille francs. yow yow yow yow dégg ko tagg ñu tag wàcce la ah. wàcce la loolu daf ñoo ñu lool. ñun dañoo dem taggaate. ñu ba ñu dañoo dem taggaate ñu jox ñu cinq cinq cent mille. waaw taggaate jaaxul. mu ngi sori joxee cinq cent mu ngi ci kay mu joxe cinq cent. déglu la Cheikh léegi liy wax ji mooy ummi mii ummi. waaw mii waaw. nan la ñuy def ba génn kër. xibaar waaw xibaar. waaw ñaar dong nag. Hmm. tam xarit yi ñun ñoo ko yor. ñooñu la ñooñu tam xarit Oustaz Fall amul jot ren si bi lay amul jot mag yoo koy def loolooy dil bi de. ah xam naan gi. Eh. ñoo koy def di. xam nga Oustaz des fois te mu def direct. ay télé invité ko wala. Ah, déglu ma waxtaan bi jeex na wallaay ah, wallaay wallaay <laughs> man man de xiif gi may xiif fi mu toll nii. ah ah ah. man de jërëjëf eh, jërëjëf tam si ne ko tey doo fa reeree moom. Ah. fii rek fii rek. ah fii moo taxit. <laughs> moo taxit ma ñëw. <laughs> maa la ko wax. eh <laughs> waay daan dëpp maa la wax. am na bi yàqu na. kenn dëppatul dañ daan ah. Ah. man day xanaa rek. laa jël kon tey naa ñu raxasu bi boo. Oh, jarul ko ah, ah. ma cere amul. waar de waaye itam. ngéwal laa cere ngéwal ak Espagne. Oh. waaw barki bi xoolal. man de mosul jot ma cere la lii. moom. wax dëgg yàlla daf maa élargir. <laughs> du dara nag du dara. ummi ñaata at lan ne. ba la takkee ba léegi dama laa mos a tonkuloo cere euh, ju ñeex mu xonk. mu ngoog mu ngoog. boobu lan. Ah, dama laa mos a tonkuloo cere. ay estomatique ñeex mu xonk. waaw sa ñeex mi ni ñeexu maafe. mu ngoog boo ñamee di man ñamal man. cere ji rek wa wa. sama feebar bii nga man ñamal. la laay ñam. ma daal lu ko ndox rek waaye xam naa moom. Ah. du ma arrangé sax ñeex mi mel ni hmm. ndox yoroo ndox ma jaay koog ndox mi. nii la ñu toogee cere. nii. sa hmm. cere yow may ma jàmm nga naa man dama koo bomb. ma ne. waaye may ma jàmm waay. xam nga estomac nii la ñu toogee cere. ko ah. lekkee fi mu toll nii. Ah. ay giix dinañu rey. lekk lekkal te fi mu toll nii. suur na. ñaanu at mi ren ñu ñoo ko yor. dégg nga. dama dafa ne eh, ren ji du jot Sidi lay neen du am jot. jox la lu ma sëkk. dégg nga. amoo loo may defal lu eh, ma la joxe ummi ne la toogal ma toogal ma lii nga xool loolu la neex toogal. def rek. ah def lu leen neex rek. balaa maa mi ci jox ko sa booy yooyu di xool lu eh. man maa joxe dépense am ñoo ñoo joxe dépense. dama ne nga réglé. kuy yow ku la may nga jël sang. waaw may neexal ngay continuer. ah muy. ah yow man nga ma fee junni ma toggal la cere. ah ko ba mu saf nga am looy wax. Seck junni mënul togg ca ca ñeexum ñebe. ana maam jaara buso ah? ana maam jaar ah. man daal man daal jigéen ñi daal so ah. ñoom daal ñu daal yéen daal royatoo leen ci yaara bu so fan laay reere arrêté eh. eh. ne nga yow ci na man nga réeri ji ci sa kër nga xam ne da ngay xuuta xuuta di yappar yappar yi reeraam sa jëkkër moo ma tooñ de waaye am naa cere ju doy de. am naa cere ju weex tàll. ju am dugóor. dégg nga am yomb am lépp. fu ñu reere bu neexoon. ñaan nga lañ jëm. Ah, waaw kay ah, ah, ah tey ñaanu at mi tey eh, ñoo ñoo ko yor. cere gi mën naa koo cere sonn si a dee. ma ne ñaanu at mi ñoo. dama <laughs> na la xañ yool. na la xañ yool dégg nga. Eh, oustaz Fall amul jot tey sii amul jot bu ma daaneel. waaw dama ne nga réer si cere ji. force. ma meew. ñax meew. cere meew day meew day bariché. boo koy lekk di faatu fa yàlla am. cere meew. kii jabar ji kii moom maa ko jéppi rek. bal bañ bàyyil bañ bi ci loo ne moom bi yaay gas de togg sama kéré bomb ko ba mu neex sék gandu sama nijaay yobbu ko nan ko ñaan nga xawma ma eh, xew wa non <laughs> bàyyi li leen def kan la kan ñaan kan la ñaan nga ne reer ha yëgul li ha waxal ak kii waay ñu la teel a tawal moo tax ma téla paré pare wa waa ñu la tawal ni la tay tay bari na de wuy ma wima ma ay invité d'honneur nga tim d'honneur yéen fi gën a bëri jikko gis ngeen bu dee sama cere ji moo leen neexu ngeen romb non cere ji sax macha allah danaa xa eh wuy ma ñaw bët ah, non non man damay xiifal man lekkuma damay xiifal jàpp ci rek eh ñun tay ay invité d'honneur lañ toog ci kaw langal suñuy tànk lekk ba suur naan ba doy kon tay yóbbaale leen kan ah, non attends attends waaw ma lool moo ak fal fan la ngeen nga ne lañ jëm sama cere jaay ma sonu ci bu bëgg dé bomb ko subu bu ligi ba ma yeewoo fajar maam yaa saa di tay di mooñ di def lu ne pour ñu reer ñu ñëw ne ma ñu tay ban ñam ñam di ci rompoye. rompoye ba. ben cere basket. Rompo bu budd bi mo am ay ñam ah xanaa borom cek ciak yi ñoo fay ñam eh, man mo <laughs> eh, ma dé dé mo ma mo lo gis ngeen ni da ngeen bari fon duma ma mo ma nag may lu ne bamu dess des fi ma Waxal ak moom. est-ce que xam nga benn affaire. soupçonné naa benn affaire de. muy lan. est-ce que xam nga ne paay. ba moytuwul kër maay booy la jàpp parce que maay booy tegaloon na ma léegi ay paa ñoo leen financé pour ñu door cere tay ji ok. est-ce que xam nga loolu. maa ngi doon dégg ñu naan paa nekk Galaxy TV di ko toj. nga ñoom moom la ñoom lañ doon mbaraan di ñu jox. waaw te paa nekk Galaxy TV.

mais nak deug ba tempo tempo lay doon sunu no attends sunu rythme ngay top hmm luñ la wax defal defal duggal duggal fuñ la wax yem fa nga yem fa gennal gennal xana du ñaan rek maaw mi condition yi la la tegal mën nga ko wala mëno c'est apprendre ou à laisser kon tay xana dem sañ sey rek ñu dem jaru ko li nga def ni yow lii tok na ñaan bi zone bi ni tam xarit bi sama ni nijaay ñaan ñaan way yow wuy ma yow kon maamu yi ma jàpp ci rek bu ñu demee. nii rek lu ñu ne la defal. nii rek defal. <laughs> nii rek dégg nga foofu. Fall mi nag moom Fall maa ngi àgg. gàddu kurus. kurus. nañ dem jaru ko sax ndax. jaru ko sax maa ma jël koor gi rek. nañ dem rek maa ma jël koor gi.